du Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tekk gi Ousmane Sonko ne tekk boobu ak léegi moo ërëm l'observateur ba tax mu xëy di ko jàngat ubbil yéenekaay bi bi ko justice bi condamné ci coowal Sweet Beauté li def na daanaka semaine yàlla njiital parti Pastef li tekk bi la maye tedd lu ñu ko xamee Babacar Dione dib taskatu xabaar buy gëstoo ko xeltu ci politique réew mi diñu wax ci yéenekaay bi ne moom li mu jàpp mooy li ñu naan ko amum seko doo soowokum seko loolee di Ousmane Sonko dafa toog di observer ngir di moytu ñu gàllaat ko yeneen i sars bolokis bi ñu defoon ca këram ga ca cité góor gi moom Ousmane Sonko toogaanu ko ba munta nooy le témoigné mi ngi ñuy xibaar ci xëtam mu njëkk na yëf ya dakk na teggi nañu bolokis ba journal bés bi le jour moom it xëyee xibaar buy bett ñu bari yéenekaay bi bind na ne Macky Sall ak Ousmane Sonko ñoo ngi doon wax ci ay intermédiaire ca lañ ko doon jaarale bi ñuy waajal procès ngi ci journal bi journal beneen mu di libération xëy na ay kàdduy docteur Khady Fall mooy responsable service d'accueil des urgences bu hôpital dalal jàmm ba ca Géejawaay docteur Khady Fall ci bésub àjjuma bi weesu indi nañu ci hôpital ba ñeenti nit yu faatu ci manifestation yi ak ñaar fukki doomi aadama ak benn yu ci jële ay gaañu gaañu nee ci blessé yi ñu leen indil am na ci ñoo xam ne ay fital ak arme blanche moo leen gaañ leneen lu gaañu ba yëg yi Sud Quotidien moo di économie bi réew mi yàqu gi sëgg sëngéem la def jamono ji ne ci ñetti yi ni yu bari yàq ci réew mi bëy di añ jiital conseil national du patronat CNP mel ni ku koy dëggal ci journal Le Quotidien nee fa entreprise yi ci réew mi ñàkk nañu lu bari ci genn ak bëccëg liise ko na ko booba université Cheikh Anta Diop ma ngay jooy ndax démb ba fa professeur Moussa Baldé ministre enseignement supérieur demee àndoon ak kilifa yu université ba la ñu fa gis ci ay dégâts jéggi na dayo ay bis amatu fa ay wata waxi nopp étudiants yi ñoo ko moomoon ak ay diplôme yoo xam ne ca faculté médecine ak faculté lettres fa la nekkoon lii quotidien bind ci xëtamu njëkk ne UCAD di université Cheikh bu Ndakaaru jam nañu ko waaye taxul mu daanu ministre enseignement supérieur di professeur Moussa Baldé ay kàddoom ci xët mu njëkk lii quotidien mu fay wax ne lu nekk mënees na koo xalaat ba mu des réew mu mel ne Sénégal sans ay université yuy dox ñu dox dem ci anki mi bind ne njiit réew mi di président Macky Sall dem ga mu demoon Touba ci sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru enquête dina kay ne nañu yaakaar ju bari wékki na ci ngir réew mi jóge ci jalti jalti gi mu nekk borom Afrikajom Center di Alioune Tine neñu ci journal bi ab gouvernement d'union moo mën a régler situation bi situation bu doy waar suur nee nañu moom la ñu naroon dund ci HLM yëral xët mu njëkku yéenekaay bi keroog ca manifesté yi ba ñu fitalee waa ji sursoit nañu moo di bâtiment ba ak nañu ko tabaxe ndax bu ñu ko xasee ba tëj nit mënu faa dugg wala mu fay sànni ay cocktail molotov ñi gàddu woon seeni cocktail molotov bëggoon a dem songi place de l'indépendance jóge fa jàll palais de la république l'observateur ne nañu ñoom ñooñee toll ci ñaar fukki nit ak ñeent tuuma yi ñu leen di toppee dix gann la def yéenekaay bi mi ngi ñuy waxit ne li ñu defeere parquet ci ay manifestant ci benn ab semaine ëpp nañu téeméer fukki jigéen ak juróom yu bois sacré ñu jàppoon ñoom it li ñu naan retour de parquet loolee lañu leen def nday ndak Touré mi ñu mi ngi ñuy wax li waral ak Station. Kenkayri AAD moo leen doon may li ci yéenekaay yi